pëmax la ayca jërë ngeen jëf door ak populaire mi xëy dikk ak ñun ci kàddu yu bawoo ci njiitu réew mi Macky ci tegit ne mu doon amal ca diwaanu Saloum ci euh, kàddu yi mu yëkkati jëm ci mandat bi nga xamante ji ñi ngi naan dañ li mu wax moom président Macky Sall mooy loolu ay caaxaan la moo ko diggee woon nañu toog déglu ko ñi nga xamante ñoo fale ci ku jëg politique gi nag Macky ne nañu maando ta toog déglu ma loolee moom président Macky moo leen ko wax réew mi quotidien xëy ci dellu soit mais moom leneen la ca gis mu di président Macky Sall lu aju ci coowal mandat bi sept da koy def cinq ans am du ko def référendum la koy jaar wala ndax assemblée la koy jaar en tout cas yéen a kaay bi nee nañu Macky Sall wàññi na ay gaayam bëggatul ñu ciy wax ba noppi nag sax far da a menacé ndax nee na amul benn importance li mu bëgg ñu wax ko mooy lu yokk réewum Sénégal indi débat boo ji nit ñi dañ ci mën a gis seen bopp moo gën nekk ci wàllu politique di dem ak a dikk quotidien xëy tuddee débat boobee cacophonie ak ñi ci Macky Sall taxawee yéen a bi nañu président Macky Sall kon dakkal na cacophonie bi léegi wax jeeg coow leeg bi coow beeg ne ji amoon na ci loolee président génn na ci kii di woowee cacophonie témoin moom récréation la ci Sall euh, lii démb la woon ca diwaanu Saloum mu yëkkati fa yile kàddu di sàkku ci gars yi ñu bàyyi débat boobu ci lijjanti beneen débat boo xam ne am na importance beneen débat boo xamante ne ji am na njariñ loolee témoin moo ñu ko wax Sud du Quotidien dellu siwaat ci mais leneen la gis mu di Macky Sall daal ni mu waxee ci mbiri débat bi ak it fi ñu ko doon xaar li mu ci tontu en tout cas yéen a kaay bi ne nañu leerul lëndëmul kenn xamul nan la Macky Sall bëgg a def ndax dane woon euh, ci weeru euh, ci 2016 dañuy def ay référendum ngir kon organiser laaj ndax dañuy yokk mandat bi wala dañ koy bàyyi fi mu nekk wala dañ koy wàññi ba mu yàgg démb mu ne xamul ndax assemblée lañ koy jaarale wala duñ ko jaarale en tout cas daal dina ko def yéen bi nañu loolu dese leer observateur moom it gis loolu mu di euh, jeu trouble ci mandat njiitu réew mi Macky Sall ñii dañuy wax lii ñii wax lii moom day mbilij sax waxu ci lu leer débat bi yéen bi xëy na ko teg bari na ci laaj ay politiciens ñu bokk ci mouvement Y askan wi ñoom ñoo mën a wax ndax samay projet dox na wala dox loolu Macky moom moo ko lijjanti le soleil moom dikk ci lenn ci projet moom président ak i ba muy amal ci diwaanu Saloum yéen bi na ñoom Macky door na liggéey aju ci defaraat ñaari yoon yi mu di euh, Dakar mu di Kaolack ak Fatick loolee président moo ko def Kaffrine ñu fa doon amal conseil des ministres décentralisé yéen kaay bi nañu lu toll ci milliards ñeenti téeméeri Sénégal moom Habib Sy mbiri parti démocratique Sénégal mbiri Karim Wade mbiri plan Sénégal émergent mbiri autosuffisance euh, en riz lépp wax na ca nee na mooy doon président plan Sénégal émergent mu ne daal yëf yi baaxul dañu ko dañu ko dañu gaawantu dañu ko jaxase euh, Abdoulaye Wade mu ne li ko wutale Macky mooy Wade day signalé droite jàdd gauche Macky nag moom day ñëw ci intersection bi sax signal day jékki-jékki rek jàdd fu mu jëm loolu Habib mi ngi dànkaafu bëru askan wi mu di Tyson nee na su ma jàkkaarloog moom li leer mooy xeex dana am xeex mu muta ñàkk danañu raag ba naaw ay kurpañ dana am yemu ci ndax nee na euh, kii di Tyson man maa ko gën a nekk xale maa ko gën a ñeme maa ko ëpp fit mbër yi ci làmp ji yëpp Gris boo nee na Tyson moo ci gën a doon tapet borom fit dëgg ci observateur ubbi leen ko ñu xool observateur voilà Pape Cheikh li ngay gis ci biir observateur la nekk dubalees bàyyi Balla Gaye moo takk yaay <laughs> <laughs> merci Mahmoud ñu ngi lay gërëm bu baax kon ñu ngi leen di souhaiter heureux